Voilà, ravi de vous retrouver sur Sénégal Télévision, la télé de la jeunesse, celle qui vous rapproche de la réalité mbokk yi xarit ñu ngi nuyu baax di leen dalal jàmm seen émission nooy def ba falu ni ñu koy baaxoo dek defee saa su ne ñi nga xam ni ah, ñooy laaj li nga xam ni mooy ah, gox-goxaani si élection yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal ah, tey jii ñu si dalal ki nga xam ni mooy monsieur Amadou Sène Niang nekk secrétaire général bu parti ADS Garab nekk tamit membre bokk si coalition na ak Wallu Sénégal nekk en décentralisation nekk tamit candidat bi laaj commune bu Nord ñu daal koy bàyyi bu nekk suñu ay internet laata ñu sóobu si waxtaan bi nar a séq suñu diggante monsieur le maire ñu bàyyi la nga nuyoog internet yu jërëjëf euh, Mor Talla euh, Anne ñu lay d'abord di la nuyu di gërëm si invitation bi di nuyu internet yëpp. di am mbégte aussi fekk euh, fii fii si tele bi ay ndaw yu am initiative. def entrepreneuriat mën naa la tudd yow Mor Talla mën naa tudd euh, Amadou saw Ndiaye am euh, ak euh, Clédor ak ñeneen ñi nekk ci équipe bi yëpp di leen féliciter ci initiative bi di leen wax rek nii la que le ciel soit votre horizon maanaam bu leen jombal seen bopp dara lii ngeen def nii na gën ci tele yi incha na nekk télé bu àdduna xam. Mm. àdduna di ko suivre loolu laa leen di ñaanal. li si yëpp li si des yëpp nag pas-pas la rek. Mm. ax ax nekk si suuf nag bu sutantee dañ ko jàll. Mm-hmm. na si waa Tëngéej yëpp jàpp. incha mu nekk seen télé parce que télé bu tuddee Rufisque Sénégal. Mm. Euh, waa Sénégal gépp war nañ si jàpp mais rawatina waa Tëngéej. Mm-hmm. donc loolu daal laa laay njëkk a wax. di nuyu kon internautes yëpp. j'aime bien votre slogan. la télé qui vous rapproche de la réalité mm-hmm. je crois que man décentralisation mooy sama yëf lépp luy rapprocher citoyen bi luy jegeñ citoyen bi muy xam di gis rek dama koy saluer donc lu ma neex la. Mhm. di leen gërëm di leen sant di ñaan rek émission bi. passé dans les meilleures conditions. contribution euh, politique la fi ñu doo commencé ak yow euh, da ngay nit koo xam ni euh, ban dama naan jeune sax parce que nee nga ko équipe dynamique bu jeune moo fi nekk tey jii particularité plateau bi tamit mooy c'est la jeunesse tey jii ñu nemmeeku la ci espace politique bi depuis nga bi nga nekkee si école ay nekk ay. Euh, étudiant ak élève si nga commencé di fréquenter li nga xam ne mooy conseil municipal yéen est-ce que mu defal benn analyse euh, euh, sa ambition ci politique. jërëjëf laaj bi dafa ma neex lool parce que effectivement sama ambition lenn rek la mës a doon mm-hmm. servir ma patrie. servir ma patrie loolu moo mës a nekk sama ambition bi ma nekkee gën a nekk xale. Mm-hmm. loolu laa gisoon. moo tax ma teel a am engagement politique euh, xool lu baax sama quartier ma taxaw si à Dangu dàngu Nord Dangu résidence xool lu baaxul sama dëkk Tëngéej mu taxaw si laata maa nekk conseiller municipal nekk naa conseiller la jeunesse après nekk naa ko lu yàgg fekk maa ngi nekk conseil municipal euh, nekkoon nag ay mag Clédor mii nee na ma Colobane Malick Guissé la dëkk mhm. Malick Guissé boobu di suñu pàpp ju baax man je me bu ma waraan jógee Tëngéej dem ndakaar def activité politique ah mbooloo bi ma àndal mhm. moo ñu daan jox kaar yal na yàlla yërëm ko xaare ko àjjana Mbaye Jacques moo ma boole woon ak moom mhm. euh, benn ambition rek laa amoon servir sama dëkk jamono jooju nag xale newul woon si politique. wala ñi si nekkoon seen taxawaay yëpp moo nekkoon comité de vigilance maanaam garde mag ñi. di leen xeexal di sànni xeer. di def na ko sudul noonu. ma mm-hmm. moi je m'étais dit que c'est pas ça. Mm-hmm. et c'est pourquoi je remercie beaucoup Mbaye Jacques bu daan may xaalis sax damay croiser les bras. bu ñëwee ba tiim ma ne ma cey ëmër seen xamoon na li ma doon dox moo tax mu uuf ma. 96 bi ñuy def élection locale yi mu ne Amadou seen ñaam yi day nekk conseiller xaw man maa ngi dëkk noor mhm. mais sama premier mandat conseil municipal c' est à l' est. d' accord parce que il que je sois à ses côté loolu la bëggoon. Mhm. au côté de lui au côté de Pape Gora Faye surtout yàlla na yàlla yërëm ko moom tamit ñoom ñëpp. Mhm. donc euh, euh, rappelle bien e loolu waa Tëngéej am na ñu koy fàttaliku j' étais candidat maire. bi ñu demee à mhm. kon du tey laa nekk candidat maire mhm. quand on a élu les conseillers il fallait élire le maire d'accord sachant que Jacques du nekk candidat du nekk maire objectif am moo nekkoon maire de la ville mhm. j'ai présenté ma candidature waaw ñu bëri nag jaaxle woon nañ si am na si ñu ma si mere woon am na si ñu ma si saaga woon xam nga seen ñaa yàgg na si yooyu mais damay sant yàlla bu baax parce que la ma si bëggoon am na tey ndaw ñi fekk si ma si politique bi tey la remarque ile la là elle ndaw yu bëri nekk nañ candidat maire tey te lool laa si jublu loolu bokkoon na si li ma si jublu woon euh, dañ ne woon mënul ne xale nga ba dama ne woon Lat Dior bi ñu def euh, suñu héros national vingt ans la nekk Damel du Kayor Samba Gueye Diéli 15 ans lañ ko introniser donc euh, loolu du woon critère. Mhm. ndaw ñi politique bi nam meloon nag dëgg-dëgg ku nekkoon ak dut Keita ku nekkoon ak maire Mbooba sàll ku nekkoon ak Mbaye Diop Veseya dëgg-dëgg ñooñu ay mag lañ woon sax ba may jamono jooju ma nekkoon xale seen biir classe politique bi ay mag a fi ëppoon. Mhm. amoon nañ nag taxawaay bu am solo mais. li tolloo woon ak seen se jamono ji jamono jooju li waroon si li ñu waroon def méngool woon ak ñoom seen gis-gis si politique Mbaye Jacques tax daan na faral di ma tooñ naan si PS New Look nga bokk loolu la ma daan tooñe mais loolu lépp tey dama koy sant yàlla ndax euh, euh, tey ji ndaw yu bëri fekk si nañ ñu ma am si mbégte parce que euh, cela ne veut pas dire qu'il faut faire table rase de la vieille garde am nañ solo am nañ njëriñ mais pour man dëkk c'est la conjugaison des efforts boole génération yëpp mooy tax dëkk dem mag ñi rek waruñu doxal bàyyi ndaw ñi ndaw ñi it waruñu beddi mag ñi daal di doxal ñoom ñoom rek. Euh, tey jii da nga wax ni mooy wane ne am nga benn expérience boo xam ni capitulé nga si li nga xam ni euh, ci sa jaaja politique ndax tey jii loolu bokk si li tax euh, PDS daal di lay tànn ak coalition bi nga pour nga représenter leen au niveau du Nord. waaw jërëjëf laaj bu am solo la PDS euh, bu président Abdoulaye Wade mm-hmm. fii si Tëngéej si département bi Daouda Niang maire Daouda mm-hmm. Niang moo leen fi toogal mm-hmm. mu nekk kilifa si man mais dënk ma kàddoom si magistère bi nga xamante ni mooy jeex muy euh, au niveau de la ville de Rufisque dégg dénk ma kàddoom mu nekk lu rëy si man je m'étais dit que dinaa def tout ba mu gis boppam si lim ma dénk loolu moom moo koy apprécier ak waa Tëngéej ji mais j'ai fait tout ce que j'ai pu tout ce que j'ai pensé être bon dama ko daan tàggu tax su ma yabalee ma ne ko lu may wax mu ne ma loo wax maa ko wax loo wax baax na donc ma koy gërëm bu baax confiance bi Euh, confiance boobu nag la mottali c'est vrai que danaan yoonam newu si tànnu ma ñi ma tànn mooy waa Rufisque Nord xam naa peut-être ñàkkul déena leen wala it ñoom peut-être ñàkkul xool nañ sama digganteeg moom mais lu si mënti am maa ngi leen di gërëm bu baax a baax waa PDS yi xamal xam rek ni noonu mooy ànd àndu nawle la ñu ànd teg ko si générosité teg ko si confiance teg ko si solidarité man sa njëlbeen laa déclaré candidature au nom du parti qu'on appelle ADS Garab que je dirige. d'accord avant coalition bi di la. avant coalition bi sa après waa jot na def ma seen candidat à Rufisque Nord bi ñu booloo ànd ak wal PDS nag dans le cadre de, de la grande coalition wàllu Sénégal nga xamante ni PDS mu ngi si CRD mu ngi si AJ mu ngi si. Uh-huh. LD debout waaw LD debout. Uh-huh. Uh, ax waa jot na yëpp. ñu ne kon aarufis ko noor coalition bi yëpp daal ne seen ñaa moo leen di. jiite moo leen di représenté. Uh-huh. mu nekk sas. donc sama wareef yëpp mooy liggéey si ba ñu am ndam. te bi ma toogee fii ma toog ni maa ngi doon jokkoo ak Binta Boy. nga xamante ni. mooy deuxième sur la liste proportionnelle. d'accord première des femmes sur la liste proportionnelle. dëkk Fass di nekk jigéen bu mën góor. bi ma raccroché ak moom Issa pay oo na ma. Mhm. xaw ma maa ko oo. Mhm. ñu waxtaan it si toujours liggéey bi. te moom mooy suñu candidat à la ville de Rufisque. Mhm. donc lépp sotti seeg def si la tey jii du PDS du na du ADS du LD Debout du kenn wallu la. wàllu Sénégal mais fii wàllu Tëngéej. d'accord wàllu Rufisque Nord. d'accord ah, tey jii euh, bu ñu xoolee foofee sa Rufisque Nord daanaka kandaay bëri nañ te yow Amadou seen ñaa ñu gis la nga ni beneen forme politique yi nga xam ni si côté municipalité yi daanaka candidat yi noonu la ñuy doxalee ah, tey jii lan mooy sa différence ak yeneen candidature yi nga xam ne nemmeeku waaw peut-être sama différence ak ñoom euh, waa Tëngéej ñoo ma ko gën a xam. Mhm. ndax ñu ngi ma koy wax. d'accord ñu ngi ma koy wax bu baax a baax. fu ma jaar ñu ne ma ay na yéen ute ngaak ñi fi nekk surtout loolu ñu ngi koy wax ute naag ñoom mm-hmm. si sama jaar-jaar mm-hmm. ku nekk si àdduna am nga jaar-jaar mm-hmm. mais si wàllu maire yi kenn si ñoom amul si jaar-jaar bi ma am loolu nit ñi xam nañ ko ñu ngi koy wax ute nañoo man si wàllu eh, xam-xam beeg liggéey bi ku nekk am nga xam-xam si dara walla si wàllu defar dëkk ak yore maire yi li nga xamante ni am naa ko si ute naa ak ñoom liñ si am loolu waa Tëngéej xam nañ ko ñoom candidat yi xam nañ ko bi si topp mooy e, équipe bi ma yore ute naa ak seen équipe ndax le PDS est là depuis 74. D'accord. le PDS n'a jamais été en deçà de 25 pour cent toutes élections confondues mmh. donc c'est une base affective réelle kii est bu ma si dollee li ma am bu ma si dollee li LD Debout am bu ma si doolee lu bokk gis-gis am pax bor gis-gis à Rufisque Nord ñun la àndal su ma si doolee citoyen lambda yi toog te gëm li may wax ak li may def je crois que comme la ma waxoon sa benn émission télé ne y photo mm-hmm. donc loolu beneen différence bi si topp mooy Euh, peut-être tàmbali naa teg programme waaw ah, ba may déclarer candidat laa ne def naa diagnostic lii laa fekk Rufisque Nord lii mooy saafara bi nii lañ koy régler daan ne cinq vingt trois cinq axes programmatique vingt projet et trois priorités loolu ba ma ko waxee Sénégal gépp waxuma Tëngéej waxuma ne Rufisque Nord kenn waxul woon waxi programme parce que pour moi c'est un déclic que j'ai suscité parce que tey dem nañ si tax ba di ma fay xaalis pour may dem di defar ay nit candidat si biir ah, Sénégal ay ay ay ay euh, ay ay programme monsieur le maire waa Tëngéej ci benn côté benn yóbbante boo xam dañ ma ko wax ne ma euh, contest euh, Amadou Sène Ndiaye daal waxal ñu ko li muy wër di ko def si yeneen maire yi ak yeneen kii yi koy woo pour mu liggéey leen nay toog tëggeej waa tëggeej soxla nañ ko loolu tamit muy benn kii boo xam ne waa tëggeej ñi ma koy wax pour ma jox la waaw wax nañ dëgg mais dama am liggéey. ku mm. nekk dangay xëy liggéey. Mm-hmm. loolu dafa bokk sama liggéey. maanaam damay defaale consultance loolu mënul di ñàkk di am. Mm-hmm. buñ ma oowee kannaaw bi ma waxee cinq vingt trois yaa ngi dégg chiffres yi partout maintenant au Sénégal dinañ si ñëwaat mais solo yi mm-hmm. différence yi ma am ak ñeneen ñi la fa nekk ba tey maanaam gannaaw bi ma waxee loolu da am na si tax si biir Sénégal ñu ma oo ne ma ñëwal xoolal ñu suñu dëj dem naa fi ba Fuuta uh-huh. dem si dëkk yi xool jël ay photo filmer interroger ay nit jàngat dëkk bi fanaan dem laaj kilifa yi laaj ndaw ñi dugg si marché yi dem si garage pour xool dëkk ba lu fa ne uh-huh. jëf revue documentaire xool lu ma wax sama démarche yëpp parce que candidat yi yu si bëri xamuñu tax li may wax nii donc loolu nekk na une différence fondamentale ma si sant yàlla ndax mhm. ba ma ko defee gis ngeen bërki démb Diouf Sarr euh, candidat yi ngi de présenté ñoom fi ñu bëgg je crois ñu euh, mu Barthélemy def na ko Tëngéej fii Euh, euh, commune bu Nord maam Omar ne def na ko. maam Omar euh, waaw gis naa suma salangeur bi def ko. Mhm. moom bilaa la war a def. bilan la war a def na def bilaa mhm. programme baax na parce que moom moo yore woon. bilan la def bilan. bilan wax programme am. Mhm. loolu après les Rufisquois vont juger. te mooy saluer initiative bi nga xamante ni. société civile locale bi jël nañ ko. muy ñoom docteur Amdi Diouf. ak suma grand frère ñoom di euh, grand frère. Gala de la paix bi la paix bi. nga xam ne dañ ko def tey randonnée de la paix. Mhm. may saluer loolu ba ba damay ñëw rek si maam Omar Mané. ñun ñëpp benn lañ. Mhm. ay dañu bëgg tëngéej engagé wu moom def na ñaari mandat peut-être kila bien fait. mais euh, on peut on a mieux que ce qu'il a fait. depuis depuis dix ans dañuy dugg foofu directement. Ah. tey jii analyse li nga xam ne mooy bilan bi nga fa def li mu fa def ba tey jii nga xam ne fii suuxee na il faut que ma ñëw indi fa sama expérience indi fa lu bees. bu dee dafa présenté bilan peut-être li ñu mën a jàpp si bilan bi mooy maire bi la defar ba bu rafet. fa muy liggéey moom je crois maire bu rafet la. loolu daal lañ si jàpp mm. paafe na ko peinture na ko cuuraay na ko <laughs> def na fa lu ko ne deux mandats yi maire bi daal maire bi daal moom rafet na mm-hmm. léegi xam naa <laughs> man la koy defaral man la koy defaral man na nag ma jugee ma jublu si dëkk bi d'accord parce que defar maire yi baax na mais defar dëkk bi nga xamante ni moom lañ dénk maire bi nekk si maire bi moo ëpp solo donc loolu. présenté na bilan bu dëgër de. waaw bilan bi man li ma gis laa ma ci conseil municipal à Rufisque Nord. Mhm. mënuma la wax bilan bi. si loolu rek déjà c'est une c'est un problème mënuma la ko wax et je de bonne fois d'accord je suis de bonne foi te nit ñi xam nañ ma. Mhm. mais ku nekk xam na ni maire bi rafet na. ku nekk xam na ni sant yàlla problème mu nga fa. Ah ku nekk xam na ni Daaru Rahman problème mu assainissement nga fa. dégg naa tax am na si ay eh, latrine yu mu waroon yuñ ko joxoon ñu mu war ñu war si def mais def ko sant yàlla par exemple donc yooyu eh, problème la eh, Rufisque Nord dans sa partie nord mooy toutes les cité mhm. amul benn tali bu fa am benn tali amu fa te cette ces cités là existent depuis bientôt ou plus de dix ans donc benn tali amu fa mais su fekkee côté assainissement nga xam ne compétence transfert léegi bokkatu si kiiwu maire yi est-ce que tamit loolu wax la bu sénégalais yi di wax des aspects importants de l'assainissement relève des communes da ngay dem bu ñu di yam rek ci code général des collectivités territoriales mm-hmm. c'est vrai que yenn aspect yi assainissement lourd bi ça relève de l'état de l'ONAS mm-hmm. mais am na aspect important comme latrine yi comme curage affaire yooyu et ça relève des communes donc loolu mu ngi ci code de l'assainissement am na tamit benn plan boo war a defar en tant que commune si wàllu assainissement plan boobu amul commune Rufisque Nord yu bëri daal mën nañ ko si wax mais bu ma ñëwee si li nga may laaj muy diagnostic bi partie nord Rufisque Nord muy cité yëpp cité Dabaax cité Tako cité Safo Safo Sofa cité Sénélec cité yooyu yëpp site mbay Jacques Diop cité yooyu yëpp amul tali te 30 mètres yaa nga fa tàll ñaret bu tawee kenn du fa mën dugg parti sud bi muy dàngu gendel daaru salaam faas sanca ba jàmm gën ndar gu ndaw mhm. sant yàlla tali ya fa ne c'est des routes benn baaxu si jaaral jugeel pont Gabin nga jëm nim Daaru Salaam jëm Fass Conteneur mm. da ngay sonn mm. boo duggee dàngu da ngay sonn mm. Daaru Rahman kazalika donc c'est des problème qui sont la mm-hmm. et c'est ça les le développement donc il faut que accès bi baax amul benn éclairage public bi ça laisse à désirer mm-hmm. benn maire fii Tëngéej du wax ni daaw da ñaa moo doon fay éclairage public bi maa ngi nii di ko wax nañ ko weddi mm-hmm. kenn du ko si weddi li si ëpp quatre vingt pour cent c'est la ville qui a payé kenn du ko si wax day mel ni ñoo koo defar même adduction d'eau dañuy wax dañ dañuy indi facture dañuy indi facture pour ville bi fay ko. d'accord donc loolu euh, mën naa ko si wax. Mm-hmm. mais cette ville cette commune est la commune la plus pauvre à bokk ci commune yi gën a mag tamit. la commune la plus peuplée aussi. Mm-hmm. nan la ñuy def ba. régler problème mu Rufisque Nord xam nga 95 quand on a créé la commune de Rufisque la commune d' arrondissement de Rufisque Nord mhm. suma papa yar ma di François Goudié Guèye dafa waxoon benn phrase nit ñi ree mhm. mais phrase bu am solo bu am sens mhm. dafa ne woon Rufisque Nord yàqu ngeen ndax are ngooñ ngeen am ak armeel yi il parlait de recette fiscale ñi doon ree xamuñu li muy wax parce que dafa bëggoon wane rek ni amuñu benn potentiel fiscal boobu ba léegi amul benn jubbanti bu si am wax nañ fi waxi marché ça fait bientôt dix ans ou quinze ans marché bi mënul faxe ba dem promesse yàgg na donc loolu mhm. ban liggéey la ñuy def ba dëkk bi am xaalis moo tax ma def ko priorité dama ne cinq vingt trois première priorité assainissement deuxième bi mhm. voirie troisième bi ressource financière donc ban liggéey la ñuy def ba commune bi am xaalis loolu dafa laaj jàngat dafa laaj it xam-xam parce que ku mu neex mën nga bëgg nekk maire mais nekk maire liggéey réussir loolu leneen la donc may wax ak waa Tëngéej rek que Rufisque Nord moo ëpp problème ci Rufisque mmh. li koy saafara mmh. xam-xam la bëgg la mën-mën la xam fi yoon wi ne xam fa pexe yi ne nga dem jëli ko dugal ko si dëkk bi loolu mooy mooy dëgg. tey jii dañuy ñëw directement parce que ñu ngi dégg depuis loolu 523 tey jii est-ce que mën nañu ñëwal lan mooy 523 bi. jërëjëf laaj bu am solo la ndax lu si nekk rek dañ koy teg si xam-xam. d'accord dañu wax ni njiit xam-xam la. Mhm. dañ ma jëloon. si benn ONG ma waroon former ay femmes sur le leadership en 2002. 2002 ba 2005 mu bokkoon si exercice yi ma doon joxe ñu wax ma ñoom femmes yi. si dëkk bi ñu ne walla si Sénégal walla si àdduna bi ñu d'accord ni kenn benn nit ni ñu ñu d'accord si ni njiit la ñu wax ma lu tax ñu ne kooku njiit la. Euh, mais fu ma dem rek maam Abdou Aziz radiyallahu anhu day génn. Léopold Sédar Senghor aussi da doon génn. d'accord bi ma demee Kayar fekk fa benn imam boobu dañ ma booleel équipe mix mu am ay góor ak ay jigéen bi ñu waxtaanee ba def exercice ba pare imam bi yëkkati loxo bi man leen tàccu leen ko ñu tàccu ko ma ne ko imaam kàddu gaa ngi sa loxo mu ne njiit ñu ne naam mu ne miim xaaf miim del mu ne day muñ. day am xam-xam day maandu day doylu d'accord kon xam-xam lu am solo la dégg naa mm, Cheikh Ibrahima Baye Niass mm. wax ni xam-xam mooy jiite kon si sama doxalin li ma jàpp mooy dëkk bu mel ni Rufisque Nord ak jafe-jafeem yi ni mu tare mm-hmm. xam-xam moo koy defar xam-xam moo koy defar maanu baax na si maa ngi sant yàlla bu baax doy lu baax na si maa ngi sant yàlla bu baax ndax bi ma fi nekkee si jamonoy Mbaye Jacques ba tey ah du ma ne defuma lu lu ñaaw de mhm. wala lu bon mais defuma fi luñ may joxoñe de dégg ko fi takk loxo ko aussi dëgg-dëgg mhm. maa ngi sant yàlla bu baax mhm. di sant sumay waajur yi ma yare noonu ndax nit nekk na fi conseiller rek jënd ak 4 x yu bari di dawal wala di jaay suuf wala di uti marché man mu kenn musuma xamale marché ci Sénégal tëngéej ji d'accord donc loolu lépp euh, tax na may sant yàlla mhm. donc euh, euh, sa valeur yeeg éthique bi baax na si mhm. mais xam-xam bi aussi lu si am solo la mhm. moo tax ma am une démarche scientifique yaa trois à quatre ans laa mbëbatoon ni damay nekk candidat maire à Rufisque noor ma sol sama jogging samay training di dox di dugg ci dëkk bi waxuma kenn dara di laaj di photo di vidéo dugg dox guddi dox bëccëg dox noor dox nawet image yi na gën a frappé c'était à Daaru Rahman guddi la may dox mu taw ba sibet sori na torop ci biir maa ngi fekk benn jeune sa morom mu ngi yore portable am toog si ay mool yu wër mool yi yu ñu yu ñu yu ñu tegle mooy mur de clôture seen kër kër gi baraak la. d'accord kër gee ngi fees dell ak ndox. c'était triste c'était très dur cela m'a beaucoup a a fouetté mon engagement. c'est kii li muy dund nii de war naa ko war nañ ko saafara. mu nekk situation yu jafe yu nit ñiy dund ay nit dina taw bu mënatul ñu tëdd si lal ndax ndox mi day gilli day génn ci suuf si day bal daaru raxmaan sant yàlla fu ne si biir Rufisque noor ba dàngu résidence ki ma dëkk am na si ñu toxu dem uti feneen fu ñu dëkk c'est très bu tawee doo mënati daw ak sa oto wala oto du la yóbbooti takko du la yóbbooti fen daaru ndax benn oto du nangoo dem lu dul nga fay ko lu cher a cher mu nekk lu jafe si askan wi donc on a fait un diagnostic sans complaisance si wàllu cadre de vie nu nit ñuy dëkkee si wàllu fan la ñu war a yóbbu si wàllu animation dëkk bi si wàllu nuñ koy nuñ koy nuñ koy service public yi fan nañ toll ak si ni ñuy doxalee dëkk bi est-ce que option yi ak décision yi maire bi jël méngoo naag li ñu war a jël comme dogal loolu lépp bu ñu ko xoolee ñu xam ni lu simple la si ñun compliqué wul lool mën na compliqué nag si ñenn ñi. nga si 5 23 bi. moom lay wax noonu mooy solution bi. ñu ne kon juróomi yoon rek la ñu gis ni war nañu fa jaar pour saafara jafe-jafe yi muy cinq cinq axes programmatiques. d'accord benn bi mooy cadre de vie mooy dëkkin bi. kon si biir foofu ñu dëxëñ fa lépp luy assenissement muy jafe-jafe muy la première priorité de ko Nord ñu dëxëñ si bu ma nee wax naa léegi si assenissement bi ñu dëxëñ si voirie benn tali baaxul Rufisque ko d'accord xanaa Fass ma say rendre hommage. suma papa le maire Badara Mamaya Sène foofu tali yi macha allah mais Rufisque Nord gépp fenn feneen melu fi noonu muy jafe-jafe donc la voirie existante elle mooy yi nekk ci partie sud bi jóge dàngu wàcc ci ñëw dàngu sud ñëw ba Gendel ñëw ba dem ba Daaru Rahman dem ba euh, Fass Conteneur rek yooyu tali yooyu benn baaxu ci cité yu bees yi amul tali. donc voir yi dëxëñ naa ko. si cadre de vie si léegi deuxième bi. Euh, toujours si cadre de vie éclairage public bi ça pose problème. Mm-hmm. bu ñu demee ba àdduna fii si Sénégal ñenn ñi di wax éclairage intelligent. Mm-hmm. éclairage public intelligent. damaa dem Maroc doom dem seeti waa LIDEC Lyonnaise des eaux et de l'électricité fekk fa waa ville de Dakar ñu yónni fa juróom fu ñaar fukki jeunes ñu former leen lu mat at. si entretien maintenance éclairage public bi xam nga ville de Dakar dañu jiitu gars yi. si mais Daouda dafa topp seen ginnaaw ndax moom moo fa yabaloon mu nekk yu am solo mais éclairage public bi fii ça pose problème gis nga sant yàlla boo fa demee ci ginnaaw terrain déggoo am na benn jardin public bu fa ne ba ñu ba fa Daouda Niang di def si projet bu mu ma dénkoon muy rio wi fi ver mm-hmm. di fa def éclairage public solaire. état du Sénégal waxaguñu solaire donc loolu day wane rek ni éclairage public oui éclairage public bi am na solo te loolu da ñu lu ñu lu xam la toujours si cadre de vie mën naa fa wax aménagement paysager mooy espace yu mel noonu dañ ko war a defar mm-hmm. moo tax biñ ñu bi ñu ma dénkee projet boobu ñu faxe bu ut ay banc public yóbbu ko HLM waa conseil de quartier HLM ñu ngi may déglu law mm-hmm. la ngay gis terrain HLM ñoo ko fa def yóbbu ko sant yàlla foofu yóbbu ko Arafat maire ne ma ñetti maire yi oo kenn ku si ne nga wax ko ban place lañ koy def ma oo ñoom ñu signalé place yi ñu def ko fa. sans sous-délier maanaam dépensé wuñ si dara hmm, ma ne ko nag il faut que suñu partenaires yi parce que dañu war a def foofu wifi te euh, mën naa mën naa ko bañ a tudd pour na pas faire de la publicité. Mhm. mais benn structure ñëw na jàppale ñu defal ñu fa wifi gratuitement pendant six mois. ñu pare mu defaat fa suivement fii si place Gabar tudd léegi place Aly Gueye Diop mm. donc aménagement paysager bi ñu laajee Cynthia Nikita nga xamante ni référence la si wàllu aménagement paysager à travers le monde mm-hmm. bi ñu ko nee boo doon defar dëkk fooy commencé dafa ne espace vert donc dëkk bi war nañ am à la cité Sénélec à la cité Tako à Darou Rahman à dàngu à fas à Ndargu Ndaw à la cité Dabaax cité enseignant à Daaru Salaam partout des espaces yoo xam ne xale yi dañ leen mën a génn ñu mën a fo comme li am Magic Land loolu du dara mm. lu ñu mën a def la mm-hmm. te si loolu lañ ne moo tax place gabaar yi gis ngeen ñu ngi koy defar te bërki dee moo njaay Issa Paye candidat de wallu Sénégal à la ville de Rufisque wax na leen ni bërki démb la jógee Dakhla am na fa deux cent millions pour jardin public donc loolu cadre de vie la ñaareelu poñ bi nga xamante ni fa la ñu war a jaar muy gouvernance locale nan la ñu war a doxale wax naa ko bi ma lancé sama candidature wax naa ni le 12 de chaque mois dinaa jàkkaarloog waa Tëngéej wax leen deuxième bi ma ko def mooy bi may wax affaire u cadre de kii gouvernance locale tey le 12 la dinaa si ñëw incha allah ak suma équipe tey balaa bëccëg gi jeex incha allah. Mm-hmm. mais ci gouvernance locale mooy nu ñuy doxale est-ce que dañuy dogal tëju dogal est-ce que maire bi day defal loo xam ne man xaw ma si dara yëguma si dara comme laajal conseil municipal bu la neex xamul ni ñu ni ñu nan ban xaalis la ñu defaree mairie bi mairie noor mais mel ni panal mm-hmm. kenn xamul ban xaalis lañ ko defaree loolu problème la. c'est un problème de transparence c'est un problème de participation citoyenne est-ce que loolu mooy nekk moo nekkoon priorité Rufisque Nord waaw wala déet ñenn ñi nag dañ mën naan dëgg kër day rafet dëgg la day rafet dalwaay day day baax mhm. mais ban dalwaay moo war a baax bi nit ñi dëkk wala bi bi ñuy liggéeyee wala ñaar yëpp loolu waa Tëngéej dinañ ci tontu mhm. de tout les manières problème gouvernance bi sa pose problème budget bi conseil bee koy voté te ñëpp xam nañ ni loolu xewi na si àdduna j'ai proposé donc sama déclaration bi passé que man dinaa def budget participatif xam nga budget classique conseil municipal ñoo koy voté mm-hmm. ñoom la ko yoon sas boo décidé def budget participatif da ngay wax par exemple si dépense d'investissement parce que moo ñor nit ñi que di man li ma proposé mooy def cinquante pour cent des dépenses d' investissement askan wi ñooy wax fan lañ koy dugal. d' accord cinquante pour cent yi. Euh, conseil municipal bi dogal ko dinaa ko proposer sama équipe. te équipe bi ma àndal wàllu nangu nañ ko. bu ko defee askan wi à travers un processus participatif de consultation citoyenne ah arbitrage buy am entre les quartiers ak ku si nekk ndax fii. tali tali dàngu bi lañ war a def proximité ak population bi. pendant toute l'année. ñoom ñooy wax budget bii di ñëw fan lañ ko war a jublu. donc loolu bokk na si lima ma kii wax naa ni damay prêter serment. j'ai dit la presse nañ ma vaar. Mhm. parce que du ay làmbaatu du lu ñuy làmbaatu xam nañ bu ñu falee fan la ñuy jublu wax naa it ne dina mettre en place un bureau bu ñuy wax bàyyeekoo. bureau accueil écoute conseil et orientation. fu waay bàyyeekoo boo ñëwee Rufisque Nord di fekk une équipe boo xamante ni. dinaa fa def sociologue dinaa fa def euh, euh, psychologue dinaa fa def un administratif boo xam xam na euh, rouage administration ak góor ak jigéen ñu mën a wax xale ak mag ñu mën a wax ku ñëw ñu am déglu guñ ko déglu xam lan mooy jafe-jafe ak fan lañ koy orienté du ñu traité dara ñooñu soit mairie bee koy rey rey rey au niveau du nord wala ville koy rek la wala est wala ouest wala conseil départemental wala état ñoom dinañ la wax sa jafe-jafe bii nga indi fan nga war a jublu pour mu saafara bu dee si man maa koy régler en tant que maire de Rufisque Nord ñoom dinañ ma ko egg eggale bu ko def ñu si war a def ñu def ko donc loolu ay innovation de taille mm-hmm. taille la mm-hmm. beneen bi mooy da toujours dans la gouvernance mm-hmm. mairie bi gis ngeen fa mu ne dama koy ooyee presque Arafat presque Arafat yow boo dëkkee sant yàlla sori na la lool boo dëkkee cité da baax sori na la lool boo dëkkee cité enseignant tu es à l'autre extrémité or décentralisation la ñu wax maintenant puisque mënuñu déjjati maire bi yóbbu feneen mais am nañ possibilité def ce qu'on appelle un centre secondaire d'état civil d'accord teg ko diggante Daaru Rahman ak ak cité ko nga xamante ni dina am un centre civil ñooñu noonu du tere état civil centre principal bi nekk foofu loolu pour rapprocher davantage l'administration des administrés loolu bokk na si suñuy mbëbët économie locale mooy troisième axe bi est-ce que duñ ko tënk rek parce que waxtu bi xaw nañoo dab. d'accord 5 23 yi. d'accord donc économie locale la. dinaa si ñëw. Rufisque Nord Smart City. yaa ngi ni yore sa. tablette tablette. Mhm. et c'est important. muy projet bees boo xam ne ñu ngi koy dégg dégg si yow tamit. waaw mu nekk loo xam xamante dafa xew si àdduna xam nga man lu may wax nii du lu may làmbaatu. Mhm. en 2003 laa dem Nouakchott pour le compte du conseil régional de Dakar. d'accord participer ci benn forum africain de la société de l'information pour les collectivités territoriales en Afrique. Mhm. ba taxawaay bañ fa amoon man ak Joseph Sarr bu PDS nekk tey candidat wàllu a Yaraax. Mhm. la commune de Hann Bel-Air. Mhm. nekk professeur à l'université de Dakar fac science. taxawaay bañ fa amoon moo tax Afrique gépp daan ne yéen waa Ndakaar parce que ñun ñoo nekkoon porte étendard Sénégal si si Nouakchott mhm. yéenay organisé en 2005 ñu organisé ko fii King Fahd Palace président Wade était tellement content et y a des partenaires ba ma jugee foofu Nouakchott laa lancé un projet que mon ami et frère moo collaborateur de tous les temps Modou cuul portait parce que sa lu tenait à cœur. Mhm. mu nekk ban net. d'accord projet boobu son objectif principal boobu internet amul boobu portable amul bu bariwul boobu smartphone amul mhm. boobu wifi bi nii dangay ngay ree ba tas amagul li amoon mooy kafe eh, te amul woon fépp. ñun waa dàngu wala waa sant yàlla bu ñu ko bëggaan dañuy ñëw ba ville ñu ne kon ban jaaxle yëpp. à chaque coin de rue au à Rufisque et ce projet n'était pas rufisquois il était sénégalais à chaque coin de rue dans ce pays là on trouvait des jeunes de tout profil dina am bachelier dina am un licencié qui dina am un maçon menuisier ay ndaw yu fay toog ay ay jeunes ay waykat rappeur ñuy toog di waxtaan de tout et rien di werante ñu ne dañuy remplacer ban jaaxle yooyu par ban net président Wade bi ku ko jiba ko waxee dafa ree ba tëdd suuf ne ko nag ban jaaxle yéen waa PS yéen a ko indi donc te lu ñu yàgg la mhm. donc euh, Smart City prolongement programme daaw da la rek parce que réew yu fi faire lool la xam naa dañu am jot sax dugg si dugg si détail yooyu mais digitaliser mhm. la gestion municipale un deux créer des des startups yoo xam ne def euh, une hub numérique. Mhm. à Gendel fa lañu choisir parce que bu ma tëbee économie locale mais gis ngeen ni quartier yi à Rufisque noonu dañu am vocation. wax naa samay déclaration ne jàmm gën sànce ba fa la cordonnier yi dëkk à mhm. quatre pour cent. Mhm. ñi nga xamante ne ay cordonniers Rufisque Nord quatre-vingt-dix yi bu dee cent lañ ñu ngi dëkk foofu noonu ñaari quartier yooyu. Gendel trois Gendel quatre fa la. bijoutier yi dëkk dàngu carreleur yi fa lañ ëppee. d'accord sant yàlla petit commerce dox na fa. Daaru Rahman fa la ambulant yeeg yi dëkkee et cetera donc Gendel 2 Gendel Gendel 2 surtout ñu xalaatoon def ko ëpp donc loolu bokk na ci programme bi. muy quatre ak quatrième axe bi cinquième axe yi compétence transférée ma dëxañ ci tout ce qui est santé éducation jeunesse sport. et culture. ma jëlee sport dañ ma. invité woon Limoges. weer wële paase. pour ma wax ci sport et territoire xam nga li xew stade. pratiquants du football pour les pratiquants du basket pour les pratiquants de la lutte. pour les pratiquants de du handball et même ñiy def euh, athlétisme ça ça se pose à Rufisque Nord. candidats yi nag ñi si ëpp. maye mayoo ak xaalis lañu ñu xam. mais la problématique sportive. Mhm. elle centrale et mérite d'être Euh, appréhender autrement. Mhm. ma leen si interpeller parce que tëngéej ñun ñëpp ko bokk bu jagee ñun ñëpp la jagal. mais ñi may déglu xam nañ ni mbir mi du làmbaatu. Mhm. seen internet yi may déglu dinañ xam ni mbir mi du làmbaatu. Mhm. te du ay fo. ñii li ñu dëkke fii dafa metti école yi on n'a pas de lycée. y a que 4CM. école école primaire yi bari nañ mais ban état la ñu nekk dans vingt ans trente ans. cette population qui est déjà trop importante nan lay toll. ñooñu fan la ñuy jàngee. léegi lañ koy regle doo bàyyi ba ba mu am boom démographique nga si xalaat. Mmh. donc on est à la ah. croisée des chemins. Mmh. may tëjee foofu rek. Mmh. ñu xam ni fii ñu toll nii. sëlla ba yoon la pour waa Rufisque Nord. ki fi nekk jéem na ñaari mandat la mu mën la def man mën naa lu ko gën fuuf lu ko ëpp. li baax si jamono jii ak fa ñu jëm. ñeneen ñi fi ne bëgg nañ mais na waa Tëngéej seede ni bokkuma ak ñoom moom nga ma njëkk laaj si jaar-jaar si li may li may dundee wàllu mairie si li ma si jot a def ak li ma si xam ak li nga xamante ni moom laa mbëbët ni mooy saafara bi juróomi axe yooyu nag boo boo dégloo bu baax bu si ne am na projet yu ma si génne mooy vingt projets yi boo defee cinq wax vingt projet trois priorités rek la Rufisque Nord am muy sant muy muy muy muy muy assainissement ku am wax assainissement wax santé uh-huh. muy voir voirie wàllu tali uh-huh. muy xaalis. parce que la commune la plus pauvre et je suis prêt à en faire une commune très riche. mu ngoog ñu koy jaajëfal bu baax moom monsieur Amadou Sène ñaa nekkoon suñu gat daanaka sax lañ ñu euh, taxoon daje wax ci si bëri point si bari xam mënoon nañ si dugg. mais waxtu ji waxtu bi moo ñu xaw a tënk rek. xam naa nañuy yaa gën a yaatal si yeneen émission gën a yaatal li nga xam ni mooy 523 parce que intéressé na bu baax li nga xam ne mooy askan wi ñu koy jaajëfal bu baax mu nekk euh, secrétaire général bu parti ADS garab gi nekk tam maam coalition bu jot na ak euh, bu wàllu Sénégal nekk candidat bu commune du nord nekkoon ganu nooy def ba falu tey ji euh, di jaajëf bu baax équipe technique bi euh, am direction des programmes bàyyikale ci caméra bi ak euh, rag ci wàllum coordination bi ak DG Max Plodio di leen jox dig daje à très bientôt si beneen numéro wéy leen di abonné suñu Stack Facebook Instagram YouTube ngir lu ñu dugg ak ngeen ko gis jërë ngeen jëf